point ñetteelu point bi ñuy waxtaanee moom mooy euh, sànq yaa ngi koy wax sax muy cour des comptes mais ci corps de contrôle yooyu euh, ci la ñuy wax parce que euh, cour des comptes gis ngeen ne ñu ngi koy waxtaanee boobu ak léegi beneen bu bees boo xam ne ci ayubés bi dégg nañ ko ci muy rapport bu IGE bu ñu wax ne dafa épinglé ki jiite woon conseil économique social environnemental di Aminata Touré alors ci yow laa koy doore Sidi Bara et réponse bi nga xam ne moom la Aminata Touré joxe nañu dem interroger wu euh, ci li nga xam ne euh, moom moo jëm euh, ci ñi nga xam ne ñoo jot jaar conseil économique social environnemental mu indi Aminata Tall indi Idrissa Seck que nañu def une conférence publique est-ce que loolu moom moo doon réponse bi aujourd'hui on lui demande d'apporter peut-être des preuves si loolu nga xamante ne tudd nañu ko ci pas que mu wax ne ñeneen ñi également nañu leeral. alors merci beaucoup mais jàpp naa ni am na ci loo xamante ni il faut que ma préciser la ko bu baax. Mm-hmm. parce que ci réponse bi da nga jël benn pàcc ci réponse bi mais dama lay xamal ni l'histoire de l'IGE au niveau du conseil économique social et environnemental ça date de deux mille vingt ñu defee seen rapport ba pare jox nañ ko mu liir tontu loo xamante ni loo xamante ni. deux milliards yu ñu détourné wala ku xam sax budget conseil économique social environnemental ni mu toll ñun ñu def un an quatre mois benn exercice ci digg bi terminé ko commencé beneen exercice ci digg bi jóge fa bi ñuy ñëw benn kayit fekkuñu ko fa Aminata Touré jël sélectionné des cabinets d'audit indépendant pour def l'état des lieux mu pare ñu defal ñu auditu la fa nekk lépp parce que amul benn pièce amul dara lu ñu fa fekk dara li may wax nag ci tele laa koy wax bi mu defee sa rapport d'audit ba pare daf koo jël jébbal ko président de la république ñun bi ñu génnee soo ko fàttalikoo c'était moment bi ñu Idrissa Seck bi ko Idrissa Seck remplacé mu génn am nu mu taxawee c'était la première fois dans l'histoire politique du Sénégal ñu jël IGE di ko yóbbu ci institution IGE musta dugg assemblée nationale musta dugg sénat musta duggu conseil économique musta dugg au conseil c'était la première fois donc ñun ñiy politique xam suñu taxawaay moment boobu lan la woon xam nañ lii lan lay tekki donc yéen xamoon ngeen ko bien avant ngeen di accepter di nekk tête de liste la coalition Benno Bokk Yaakaar parce que li ma lay wax nii dafay daal di day day leer quoi dama lay wax ni mu demee parce que maanaam dañuy xëy suba rek ni nit ñi ils se rendent même pas compte que c'est la première fois qu'on parle d'un audit au niveau d'une institution institution boo xamante ni nag képp ñi ngi may tale laay waxe ni ministère di fonctionner ak ni institution di fonctionner c'est diamétralement opposé mais assemblée nationale mi ngi fi depuis Sénat nefi fi HCCT ne fi Aminata jiite c'est pendant des années dem audit amul Mimi Touré génn am taxawaay bu mu am ñu indi IGE ma ne la c'était la première fois ñun comme dañuy politique te am na loo xamante ni euh, dara du ñu bett dara du ñu tiital dara du ñu xooxatal mu am ba jeex ba jàll comme ni nga ko waxee leneen am fi de liste am fi Mimi ki nga xamante ni tey moo doon daafam il a été nommé d'âge il même pas trois mois par le président de la République par décret après enquête de moralité ki nga xamante ni c'était son daaf il a été nommé hmm. ma ne la moom président bi nga xamante ni le rapport lui est destiné moo ko def tête de liste ba ñu ca pare ba problème yi nga xamante ni jot na fee am am fi parce que bu ñuy yóbbu conseil économique social environnemental aussi xalaatoon nañu ni parce que képp kuy suivre actualité politique rek jógewu Aminata Touré au niveau du conseil économique social environnemental war na laa jaaxal ñu xëy suba amul benn problème boo fa am ñu xëy suba jëlee la fa remplacer la par Idrissa xam nga pourquoi lu ko indi parce que ci moment boobu aussi muy ci waxtaanam. ak des proches du président Macky Sall wala ci waxtaanam avec le président Macky Sall ku wax waxu troisième mandat elle est contre te bañ ñu fa yóbbu xëy alors si Sidi est-ce que nekku leen ci victimisation à chaque fois euh, vous me laissez placer ma question mën naa la ñaan benn affaire Sidi bàyyi nit ñi ñu wax tu une question je suis en train boo xamante ni dafa am solo. fa lay jëm eh. non man nekkuma di victimiser wu parce que yow yaay wax rapport yow gisoo rapport déggoo rapport ñiy bind binduñu rapport foofu laa jëm ak yow. allez alors. dama ne y' a pas de rapport ab journal nga gis bu jël ay feem bind. bien xam nga rapport Cour des comptes dañ naan la rapport baa ngi nii yow liir nga rapport yow laa wax yow Fatou Abdou dama lay laaj yow liir nga rapport. non ah kon kon kon man je ne je suis assez informé pour di jouer seen jeu ñoom ñëw toog fii mu mel ni dafa am un rapport bu am na Touré may justifié wu bay victimisé wu ah non kon ma def seen jeu moo tax quand je suis devant les Sénégalais may indi historique bi am ma lay ñaan nag s'il vous nga bàyyi ma ma wax ci mbir mi ma ni la bi ñu jugee bi ñu jugee ci élection législative nga xamante ni tënk am na par bu ma nee tënk mooy président Macky Sall mooy tànn ku ko neex président Macky Sall mooy jox nit lu ko neex mooy jox nit position bu ne waaye nit ku nekk ci say principe ak say valeur yaa koy amal sa bopp président Macky Sall moo jël Aminata Touré def ko tête de liste ni ko mooy dem présidence assemblée nationale. ñu génn foofu jugee ci élection bi ñu jugee ci élection ba ba mu ko recevoir deux semaines avant te ci deux semaine avant yi mu recevoir ko ci ñaari yoon Aminata Touré est compte est campé sur ses positions a campé sur ses par rapport au troisième mandat. maintenant dama la ciy tegal leneen bi loolu rombee xam nga femme bi li mu def li ma wax sànq divergence xam nga mooy la mooy nga xam ni kii la nga diggaale woon ak moom mooy seen premier combat yee ñaar c'était contre le troisième mandat de Abdoulaye Wade moom mu ñëw moo doon premier combat ak président Macky Sall c'était contre le troisième mandat de Abdoulaye Wade moom mu xeexandoo koog moom àndandoog moom ba mu ja ba mu gagné en 2019 ba ñu egg si léegi nii donc kooku bu ñëwee tey mu jeex no Fatou pare gu ma de. pare gu parce que ce sujet là mën nga interpeller bi mu non sujet no dama lay ñaan rek parce que c'est important dama lay ñaan rek man la c'est important. dama lay ñaan rek alors ce qui s'est passé xam nga mooy la femme bi génne na assemblée malgré injustice malgré moo xam lu mu mënti doot il a elle a fait table rase de ça elle a tourné la page de Macky Sall. yónnee na pour jox ko leneen ak leneen ki ngay génneel tey IGE bi mu bañee bi mu génnee assemblé nekk non inscrit jéem ngaa def le tout pour jubóog moom jéem ngaa def le tout pour toogaat ak moom jéem nga koo jox ay position moom pare na ci femme bi tekkiwul dara femme bi amul base politique femme bi amul dara ok mais jël na yoonu boppam maintenant xam nga lan moo am xooxatal xooxatal mooy nga xëy suba génne sa ay mbir parce que jàpp nga ni ba tey yaa ngi ci ay stratégie d'intimidation wala yooyu xam nga xam nga qu'est-ce qui se passe dans ce pays mooy que le président Macky Sall pour un troisième mandat pour un troisième mandat la jàpp na ni un adversaire bu mu mënti doon même buñ naan dañ koo xeeb même buñ naan yoru dara moom warut jàkk foofu nag daa wax benn affaire parlant de rapport xaaral ba nga gis rapport dañoo ñëw fuy seen ay mbir ci ay journaux ñu génne ko naan la détournement. man nag du ma leen may buzz bu may toog. naan dafa un rapport de l'IG parce que non attendez. très bien Sidi ñu ngi ñëwaat ci yow. mais dañuy dem ci ñeneen ñi aussi non non ci titre bi dafa am un dafa am un rapport. avec un point d'interrogation. ok donc on pose la question ah, okay, alors euh, Adama euh, est-ce que ces corps de contrôle duñu leen di faral di utiliser également euh, pour des fins politiques maanaam fëgg faagaagal kenn nga génnee euh, corps de contrôle comme ni ñu ko defee ci li fi jot a jaar. ba tax bu Aminata Touré bi moom mu jàpp ne da ngeen ko bëgg peut-être xañ candidature am ak li nga xam ne àndul leen ak yéen. mënuñu loolu. Sénégal moom Sénégal moom Sénégal moom opposition boo fi laal rek mu ne danga ko bëgg xañ candidat. non laalagu leen ñu de journal bind. loolu aussi dama koy bëgg di préciser laalagu leen ñu journal moo bind. c'est bon c'est bien à préciser. laalu leen kenn parce que mënalu leen ñu dara. ça c'est clair. oui Adama. maintenant wax nag dafa am importance ci ñu koy wax c'est dafa am solo. Le président n'a pas essayé de rencontrer Mimi Le président n'a pas essayé de, que Mimi revienne. C'est pas vrai. Le président n'a jamais On a essayé. c'est pas vrai. Au fait que waxal aussi ci tel la nekk un président étranger sax utiliser ngeen ko pour rencontrer Mimi Touré. Ah man li may wax dama ko xam je suis le porte-parole de Mimi Touré yow doo gis Macky Sall man li may wax dama ko xam. je suis son hmm. porte-parole je suis bàyyi di toog di ngeen di wedd lu ngeen xamul. Mhm. man Sidi Bara le premier mille vingt deux à dix huit heures trente entre dix huit heures trente et vingt une que Aminata Touré vous l'a dit parce que vous êtes son plus proche collaborateur j'ai décidé de faire de lui la tête de liste la may dégg. moi di je dis am na Aminata Touré jaraluma moom mu toog fa mu toog sax man gis ne Sidi Bara may fanal ci tele alors vous avez envoyé des gens pour la HCCT elle a refusé. vous avez envoyé des gens. pour ah le poste de premier ministre elle pour le poste de premier ministre elle a refusé et elle a dit elle a dit Mack Macky Sall dootuñu toog dootuñu wax téléphone. Farba Ngom à l'Assemblée nationale ci télé laa nekk bi Mimi Touré di génn ñu koy te daf ne ko président ngi nii jël ko téléphone bi mu Touré coupé téléphone bi dem. man li ma lay wax dama ko xam ci télé laa koy wax bokkuma ci nag ñuy toog nii di laam-laam non non non te mënu te lii may bañal kii naan ay eh, eh, un dossier de l'IGE mënu leen ci femme bi dara parce que ñi ñiy détourné mooy ñi nga xamante ni dañoo ñëw ci pouvoir bi ñuy ñëw indaale wuñ dara yoruñu dara c'est une femme qui s'est faite moo njëkk def déclaration de patrimoine am 93 la am ay kër bokkul ci ñiy enrichir ci pouvoir bokkul ci ñi seen doom di def bling bling je suis là je la bokk na ci parce que subir une injustice. bokk na de la part de gens na bokk na je je peux y laisser ma vie. parce que je sais lan la daj pour le président Macky Sall non xamuloo lu le président Macky Sall je suis avec elle depuis dix ans. man ànduma man dafa dañ ko dindi premier ministre ju août ma commencé ànd ak moom juillet. j'ai fait le tour du Sénégal avec et le président le sait yow tu ne connais la nature de mes relations avec le président Macky Sall maa xam naa may kan xam naa moom mooy kan te le président Macky Sall xam na Aminata Touré mooy kan. pare nga oui waxal nag rek. maintenant maintenant Sidi. Euh, euh, je pense que euh, waaw nga bàyyi ko. mun na bàyyi ma wax ah? bien sûr. je le di je le réitère. Hmm? le président n'a jamais. essayer d'entrer en contact avec Mimi di ko jox quelconque proposition de nomination ou autre waatal ma loolu président li mu wax dafa leer Mimi Touré yàgg na yàgg naa dem

ni nga ma bàyyi ma wax. maintenant maintenant si. ñu non ngay wax dëgg rek. ñu continuer sénégalais yi ñuy seetaan. Adama n'est pas un proche du président. alors je suis désolé il n'est pas dans les secrets. moo tax ñu ñëwee toog ci télé sax. il n'est pas informé. Sidi Ba Aminata Touré. ma Sidi Bara. aujourd'hui vous pouvez vous permettre de m'attaquer su la neexee. non du ma la attaqué. non dama la su la neexee. non mais je sais que tu n'es pas un proche du président. maintenant je je je n'ai jamais dit que j'étais un proche du président. ah kon xamoo li muy def. non non maintenant Sidi. non non dama ne. Sidi tout à l'heure vous m'avez demandé. non mais non dëgg na quand même. dama ne dama ne le président n'a jamais. le président n'a jamais essayé. non Adama tu ne vois pas le président. le président n'a jamais essayé. Adama yow. alors que ils sont pas pas jaar nañ ci mandat. je suis je serai vraiment dama ne il n'a jamais essayé. Sidi Ba Sidi. bu ma ko nangu lool il n'est pas un proche collaborateur. non non vous ah, ah, non su la neexee nga wax lu la neex. mënuloo exiger j'ai dit j'ai dit su la neexee nga wax lu la neex. Vous pouvez, vous, pouvez me laisser, non, vous pouvez me laisser quand même ma ma ma ma reprendre quand même le débat Sidi tout à l'heure vous m'avez demandé ma bàyyi la nga wax. et vous avez quand même ci sujet bi. Mm-hmm. wax nga ci ba doyal. vous le laissez terminer après bu amee looy wax non non vous pouvez pas à chaque fois. wax benn kàddu. ok c'est bon merci beaucoup nga bëgg ko def c'est pas ça un débat aussi. merci beaucoup. Adama allez s'il nga c'est c'est Fatou Abdou dafa am loo xamante ni toog ci télé di wax lu la neex su la neexee nga def ko le président n'a jamais essayé d'entrer en contact ak Mimi Touré n'est-ce pas Mimi Touré fait partie de ces autorités qui sont parties avec trois véhicules de la de de de de, de l'État du Sénégal. fan. yaa ngi mais non mais non. je vais demander à la Sidi Bara. je man mii toog bi may am oto sa patron amu ko man. Sidi Bara Sidi Bara je suis vraiment désolé. Sidi di nga muñ de 94 laa jënd sama troisième véhicule. Sidi di nga muñ. Adama Fall non mais non non la dame n'est pas là. Sidi Bara mu naan dafa yóbbu ñetti oto yi sax mi ngi sax dafa musa am ñaari oto. mais Sidi Bara oui ma mi ngi xam nga lu ñu koy jox Sidi di nga muñ benn oto. Sidi. Moustapha ñaari oto. Sidi di nga mu à la régie s'il vous plaît. non non du yow nekk na Adama mais je ne te commence pas comme ça. je vous di nga mu et je vous demande et je vous demanderai et je vous demanderai c'est normal là moi je comprends cette position là. non mais Adama c'est normal là pourquoi parce que vous étiez chef de cabinet de Mimi. non non c'est-à-dire vous étiez. non qu'est-ce que ça veut dire. non ah, <laughs> non mais Sidi Bara. bugguma bugguma bugguma loolu. non mais man accusation yu grave yi. vous prenez note mais Adama comment comment lan moo la jaral lii. mais Sidi Bara vous prenez note. après vous après nga répondre parce que je veux pas te génnee keroog di dem man ak yow man maa la yóbbaale. Adama Sidi Bara Fall n'a pas besoin de véhicule de Bara Fall. yow yaa représenté Benno moi je suis opposant. maa la yóbbaale. alors Sidi Bara Fall. waaw pas un salaire de 1 million 800. non non non man j'avais pas un salaire de 1 million 800 chef c'est parce que moi j'étais pas un salaire de 1 million 800. défie-toi des notes qu'on t'envoie bu fekkee mos na fayee un million huit cent yàlla bu ma ko naan non défie-toi des notes qu'on t'envoie nga koy lire défie-toi de ça non kii il est malade yow da nga dugg ci suñuy dossier vous me laissez reprendre man mosuma fayee ko un million huit cent Sidi Ba non ah, non télé lañ nekk. non mais télé lañ nekk dañuy yaakaar ne ma fayee ko 1 million 800. non sama jabar yaakaar ko fayee musuma fayee ko 1 million 800. may ma ko la jox salaire boobu dalay nax. may ma yow yow yow. ne fi toog des chiffres kon ne mais Sidi Mimi Touré n'a jamais eu trois véhicules de l'État. Sidi Ba te jigéen la xam nga ko. Sidi Bara Fall yow xam nga ko waroo toog ci télé di wax lu dul dëgg. Sidi Bara Fall Sidi Bara Fall mais c'est comme ça. Sidi Bara quand un pouvoir est réduit à ça. Ça veut nous sommes à la fin. Et tu l'as compris. Tu l'as très bien compris. Alors, avant que vous repreniez la parole, Sidi Barafal, je vais demander à la régie de couper votre micro. des notes, mais Sidi vous, ne, me respectez pas et vous ne respectez pas les... Non, non, non, mais attends. Vous nous quand même à peine 5 minutes. Merci beaucoup. Je ne veux pas demandez à la régie de couper votre micro parce que je vous respecte. mais si vous continuez comme ça ñu couper sa micro. prenez note non mais prenez note après nga tontu loolu laa la wax mënoo fi joxe information nga fi joxe après nga bëgg à chaque fois ngeen di ko def nii s'il vous plaît. ñu ñuy seetaan au moins. Euh, restez sur le sujet. yow aussi je vais rester dans le sujet. Mhm. pour dire que. li mu wax président n'a jamais essayé. Mhm. que mu leer. mi dem na def na ay déclaration on a pris acte maintenant si elle a été épinglée c'est à elle d'apporter les justificatifs nécessaires parce que nag dafa am société civile bu fi woote woon suñu suñu xaalis du rees suñu milliard du rees société civile même société civile boobu la ñu waroon dégg ñu xaar leen ci cette question de deux milliards pour ñu ñoom it ñoom milliards du rees c'est important. Deux milliards. oui parce que l'affaire c'est 2 milliards. Il y a un rapport. Non. Ah, est-ce qu'il y a un rapport qui montre. la presse parle de 2 milliards. Laissez-le non, la presse, ah, mais, attention. Bien Le rapport de l'IGE, le rapport de l'IGE est à la disposition des gens. c'est-à-dire, un rapport qui n'est pas déclassifié, comment les gens peuvent prendre la Bien sûr. Vous le savez a donné le dingue de Besson. Ah. Mais aussi, de Adama Fall, N'est-ce pas Pour dire Aussi, comme information, Mimi Touré a vu le document. Le président lui a montré le document. C'est pas su la neexee après ma su la neexee léegi nag li ci nekk mooy loolu am na lu ñu wax ci moom elle n'a qu'à se justifier avec les preuves claires liñ ciy wax mooy opposition dafa am lu mu wax pas opposition société civile dañoo génn manifester la dernière fois mais c'est pas fait exprès parce que. non xaaral ma yeggale. Mhm. aujourd'hui le rapport de l'IGE euh, il faut que ñu déclassifier ko pour que ñu mu mën a jot est-ce que vous n'avez pas fait exprès de faire fuiter li nga xamante ne moom mooy. wax ji ba presse bi jot ci. lan lañ ci jublu. wax nañu ko des journalistes qui mènent des investigations qui mènent des investigations ba yem ci loolu suñ ci yemee dañ koy génne. d'accord donc. problème mu e, dem ba IGE j'ai dem ba IGE naka la journaliste dem ba am rapport gendarmerie. non attends dañuy waxtaan. naka la journaliste dem ba am rapport journal gendarmerie brandir ko dans un dans un live. waaw wala déet. IGE c'est la présidence. non attends. rapportu gendarmerie naka la su demee ba journaliste am rapportu gendarmerie bu ñu xeeb journaliste yi nga xam ne dañuy mener seen investigation ba am lenn su sur d'autres personnalité maintenant bu ñu toog fii nag ne genre journaliste bii def na liggéeyam journaliste bee deful liggéeyam looloo fi nekk maintenant nag coow li jib na Aminata Touré n'a pas apporté n'a qu'à apporter les preuves dindi tuuma bi nga xam ni moo nekk ci moom. très bien loolu moo fi nekk Adama d'accord alors